Euh, li ma si jàngat mooy euh, en tout cas disponibilité euh, suñu ma collègues yi pour redynamiser coopération bi nga xam ne dañu ko war a am ñun en tant qu'institution disons de force de proposition au niveau des si si gouvernement yi maanaam si si si ay proposition liñ leen di jox moom président yi moom gouvernement yi moom en tout ñoom en tout cas euh, euh, disons institution yu nekk si si si réew yëpp pour quand même ñu mun jël en compte aussi yeneen xalaat xalaat yi nga xam ne ñun def nañu ko en tant euh, donc que institution en tout cas ma rafet loolu bu baax a baax mais surtout seeni disponibilité en tout cas pour renforcer coopération bu war a nekk suñu diggante en tant que institution Euh, beneen euh, poñ bi nga xam ne soulevé nañu ko fii mooy euh, disons dañu war a am benn bureau permanent te boobaa président donc Chami du conseil économique social et environnemental du Maroc def ñu si proposition loolu it bon ñu ànd si parce que am na kenn ki nga xam peut-être dafa xalaatoon ne war na mun intéressé na Sénégal muy lu leer effectivement war nañ mun intéressé mais dama jàpp ni aussi réew bu toll ni Maroc su bëggee dara mu njëkk ñu si euh, amuñu choix lu dul maanaam jàppale ko si loolu parce que aussi à chaque fois ñun suñu soxlaa dara moom it su boppam day taxaw suñu wet di ñu jàppale di ñu dimbale en tout cas si bëpp bëgg-bëgg nga xam ne Sénégal am na ko beneen bi mooy euh, lan la ñuy fexe ba yokk doole euh, maanaam association bi si loolu it c' est vrai wax nañ la wax nañu leen ne que si si si wàllum koppar war nañu def effort institution bu nekk dañu xool nan la ñuy yokkee cotisation yi mais surtout il faut ñu set si institution yi nga xam ne aussi dañu am euh, euh, disons euh, possibilité si si si fànn boobu ñu mel na banque africaine de développement ñu mel na banque mondiale ak yeneen institution pour ñu mun si jàppale maanaam si doxalin association boobu loolu yëpp foog naa ne avant ginnaaw ba fii ba travaux yi di jeex incha allah si si si si si journée bi incha allah dinañu si am euh, maanaam résolution yu leer a leer en tout cas li ma si mën jàpp daal mooy maa ngi leen di sant bu baax a baax surtout ñëw nañu ak doole parce que rappelé nañu ko am nañu ñaar ba ñetti président yi nga xam ne sax bu ñu leen nommé yàggul mais comme que Sénégal la en tout cas def nañu effort pour quand même ñëw euh, participer Euh, fekkee ndaje bu am solo bi nga xam ne am nañu ko en tant que assemblée générale fii si Dakar.